conseil départemental jox ko indemnité de cinquante mille francs war nañ fa jëlee adju conseil municipal yi jox leen ay indemnité de session cinquante mille wala ou plus ou plus parce que ñun conseil municipal yi ñoo tax mairie di mën a dérulé ñun nous sommes l'organe délibérant ñoom maire yi ñoom ñooy organe exécutif ñoom ñooy appliquer ñun li ñun tey conseil municipal nous sommes vingt neuf mille ci Sénégal suñu bankoon suñuy loxo amul benn maire benn mairie buy mën a dem jabar mais dañ ne ñun conseiller bu ñu feebaree wala wax dëgg neex yàlla mairie bi war nañ jël en charge faj bi ba ñu wér yaa a beaucoup de conseils municipaux yu ñàkk seen bakkan c'est parce que dañu amoon ay jafe-jafe pour mën a faj loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg aussi aussi mu dakk te jàpp nañ ni jàpp nañ dina faju leneen li leneen li mooy statut conseil municipal pour ñu revaloriser ko